asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen fàttali yéen a seen canal Galsen Tube la chaîne des youtubeurs ci seen programme comment gagner de l'argent sur YouTube naka la ñuy gagner xaalis ci YouTube vidéo ki leen koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal en wolof. Euh, vidéo tey bi nag euh, introduction la ci série de vidéo bu ñu fas yéene def wala formation bu bees bu ñu war a def wala playlist ci li nga xam ne mooy monétisation YouTube euh, playlist bi nag dinañ ko nommer YouTube. de zéro à monétisation maanaam ni ngay commencé YouTube zéro zéro mooy koo xam ni xamoo dara si YouTube nga commencé foofu ba mën a monétiser sa chaîne YouTube noonu lañ ko fas yéenee def incha allah rabbi pour ñi nga xam ne yëpp ay débutants lañ te nekk ci euh, chaîne bi ñu mën ko suivre ak ñi nga xam ne tam yor nañ ay chaîne YouTube mais dañ koo créé woon nii par hasard rek waaye ñu mën a suivre formation bi mën a xam nan lañ koy doxalee maanaam bu fekkee da nga bëgg moom pour monétisation la. amul benn étape boo xam ne da kaa war a nag nii da kaa a def nii rek yàlla déedéet lu si nekk da nga foram taxaw seetlu nga am objectif bu tax nga def ko nga def ko ni ñu ko war a defee moo xam nga bëgg a créer chaîne YouTube boo xam ne wala compte Google boo xam ne compte entreprise la wala compte li nga xam ne mooy particulier loolu yëpp dinañ si ñëw détaillé la différence bi ak li nga moom moo ci am ak tam choix boo ci bëgg a def tam lan moo la si mën a fekk ci kanam loolu yëpp dinañ ko détaillé incha allah rabbi di la wax ni rek li ñu lay euh, demande mooy vidéo yi bu duggee comme ni ñu la wax nga jël sa temps nga seetaan te ngay teewlu. surtout parti yi nga xam dañuy arrêté di expliquer parce que dafa am yoo xamante ni nit ki da ko war a xam dañ koy waxaale dañuy arrêté wax ko pour nga xam ko léegi-léegi day vidéo yi dañuy dem ba yaa ñu arrêté di expliquer ñu bëri nag bu ñu yàkkamte mën ngay expliquer ñu sotee di xaar rek fi ngay wane fi ñuy cliquer te nag euh, comme niñ ko mën nga xam li ngay kàcc kàcc tam moo ko ëpp njëriñ loolu tam lu baax a baax la voilà euh, loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen di demandé euh, ñu lay bàyyiloo xel tamit chaîne bi maanaam pour YouTube la Galsen Tube bi pour YouTube la ñi nga xam nag dañoo bëgg euh, xam yeneen méthode parce que vidéo xalaat TV ñu bëri bi ñu ko seetaanee ñu ngi may laaj ci wàllum affiliation am na nag chaîne bu tudd wax ma euh, wax ma ñu bëri nag bu ma leen ko waxee bu ñu ko bindee duñ ko gis parce que dañuy bind ak K ak H wax ma duñ ko bindee comme x ni ñu koy bindee ci olofal W A X M A noonu lañ ko bindee muy wax ma voilà bindee wuñ ko KH. Euh, lien bi dinaa ko def ci description vidéo bi lien bi ngay njëkk jot chaîne wax ma bi la pour ku mu intéressé nga dem abonné fa Euh, nga xaar après dañ fay def vidéo yoo xam ni day jëm ci affiliation ak yeneen façon yi gañ xaalis ci internet commencé woon nañ fa def ay vidéo yu bari mais vidéo yi ñu dindi woon ko parce que dafa am lu ñu doon testé ci chaîne bi dindi ko léegi nag euh, bi ñu bëri déggee ci vidéo xalaat TV bi ci wàllum affiliation ñëw di ma laaj man leen nag chaîne boobu lañ ci doon def affiliation foofu lañ ko doon dugal commencé waat naa nag reprendre vidéo yooyu di leen dugal ci chaîne boobu bu ñu duggee ba jeex dina ñëw ñu continuer ko incha allah rabbi am na dam ñu may laaj ci wàllum euh, investissement ci bourse yeeg yooyu waaw liñ ci xam tam day ñëw partage fii am na fii euh, Sénégal mun nga fee investir ci bourse BRVM bi mun nga investir bu dee da nga xaalis booy denc rek te soxla woo ko te nga bëgg muy jur mun nga ko dugal foofu placé ko fa loolu mën na nekk voilà dinañ ñëw sax ci affiliation nan nga ko mën a defee fii ci Sénégal voilà Sénégal tam am na affiliation te ñu bëri xamuñu ko dinañ mën a ñëw expliquer ko bu Amazon beeg yëpp dinañ ko dinañ ko gën a gën a détaillé yu Amazon defoon nañ ci ay vidéo gën a indi ay détails incha allah rabbi pour nit ñi gën a mën a xam boo gisee nag formation yi ñuy def ñun muy wóotee comme ni ko tubaab yi defee parce que tubaab yi ñu si bëri formation yi dañ koy dañuy junj dem am dañ lay expliquer ay principe dem li si des soit mu nekk ñoo xam ne dañ lay expliquer principe parce que ñoom système boobu lañu gis noonu la ñuy doxalee quoi voilà am ñoom nag dañ lay wax ay détails ci càpp après ne la li si des nag ci formation lañ la koy jaay waaw loolu ay méthodes yu valable la te système bu ñuy gañe xaalisam ci ci ci ci YouTube la euh, xalaat TV ci nga doon la ñi nga xam dañuy gañe xaalis ci jaay ay formation bien sûr lu am xaalis la waaw boo fekkee xam nga ni ñu koy defee rek di si mën a am xaalis dinañ ñëw tamit euh, def ci ay vidéo insha allah rabbi ci seen wax ma nga bàyyi xel lépp loo am dafa génn YouTube rek ci seen wax ma bi lañ koy def dinañ ñëw tam wala ni ngay gañee xaalis ci Facebook dinañ ci décider dinañ ci def ay vidéo ci wax ma insha allah rabbi parce que Facebook tamit léegi am na monétisation donte melagul comme YouTube waaye am na monétisation su ko defee yow mi mu fekkoon am nga chaîne YouTube boo xam ne yu bëri yaa ngi ko si doon dugal di mën a profiter ci loolu mais nag euh, euh, vidéo monétisation Facebook du li ngay partager ngay monétiser de non non nga bàyyi xel vidéo yi boo ko bëggee monétiser da nga leen di télécharger ci biir Facebook comprendre te ci page nga leen di télécharger voilà entre parenthèse defee dinañ si ñëw euh, wan leen ni ngay créer profil Facebook créé page Facebook defoon nañ sax vidéo mi ngi ci gaal seen tub bi nii parce que dafa bari bari ñu ñu ko doon laaj mais dinañ ñëw daal formation boppam ci seen waxam insha allah rabbi nan nga mën a gañe xaalis ak euh, li nga xam moom mooy euh, ak yeneen business yi am ci Facebook yoo du ay monétisation vidéo mais business la yoo xam ni mën nga créer business ci Facebook te fekk na yow amoo dara looy jaay mais da ngaa toog nga am idée nga fexe ba def ko business ci Facebook wala YouTube yëpp dinañ ci yow ci chaîne waxam bi incha allah mais comme euh, ci wàllum YouTube moom seen bi YouTube rek lañ ci wax. waaw dinañ euh, def suñu kéemtulaay kàttan ba reprendre formation bi gën ko détaillé pour nit ñi comprendre euh, li nga xamante ni moom mooy monétisation YouTube comme li ma la waxee sànq nag vidéo yi gudd gi muy gudd wala bokk détails yi ñu ci expliqué loolu la ñun defuñu ay tutoriel xam nga ñu bëri ay tutoriel la ñuy def dañu def ay tuto mooy la mooy def ko ci tuto yi dañu dañ la cliquer cliquer fii cliquer cliquer fii après génn dem mu jeex déedéet ñu def ñu ay tuto ñun formation lañuy def formation mooy lan mooy mbir mi yow ni nga ko xamee bu nekk sa bopp nga bëgg ko xamale noonu keneen ki pour mu nekkee noonu si boppam loolu mooy formation nga xam ne di ko pare day mën demal boppam 100 pour cent dootu la moom benn affaire la benn benn problème la nit ki am ngoon ko da ngay cuucab fii cuucab fii mu rek la mu jeex voilà lii nag du ay Tito waane formation la ngeen bàyyi ko xel moo tax dañuy jël suñu temps expliquer su dee bëgg nga mën daal jëla sa temps ngay déglu ba mu jeex te surtout nag déglu bi am na solo waaye li ëpp am solo mooy ngay appliquer parce que booy déglu te doo appliqué waaw du du am benn njariñ voilà léegi nag li ñu lay bëgg a wax pour tuuti euh, ñenn ñi nga xam dañuy dugg ci YouTube dem ba yàgg ñu génn ci wala duñ ci gis ay résultat doon nañ ko wax ci benn benn benn waxtaan bu ñu doon def ci ci groupe WhatsApp bi da gis koo xam ni day créer chaîne YouTube bi tey tey léegi bëgg chaîne YouTube ba mel ni mel ni chaîne YouTube bu xalaat TV xalaat TV ñaata temps la def ci YouTube. ñaata effort la def ci YouTube ñaata recherche la def YouTube ñaata temps la jël di monter ay vidéo ñaata temps la jël di enregistrer ay audio et cetera et cetera yow nag nga mën nga ubbi site boo xam ne nga ne tey dama bëgg ubbi seen YouTube tey maanaam dama bëgg def investigation tey nga bëgg ubbi ko tey bëgg am même audience que Xalaat TV tey loolu nag c'est impossible voilà mënoo ubbi seen YouTube tey. dem xool Sénégal set wala Sénégo wala chaîne Sénéweb bi et cetera nga ubbi chaîne bi tey tey tey bëgg mel comme ñoom mënul nekk loolu c'est impossible maanaam parcours la da ngay jaar fi ñu jaar comprendre nga voilà. yooyu ay exception rek lay am nit bu ubbee chaîne YouTube comme léegi léegi léegi moom abonné yi ba ay exception lay nekk exception kese kese kese comme chaîne Ahmed Aïdara bi ci circonstance bi mu ko defee day fa man da fi mu ubbee chaîne bi dafa favorable pour moom problème am na nekk na maire. am na problème fee ci revue de presse bu noonu def ci diggante ba ubbi seen youtube am ñu publier ko nit ñi day ñëw abonné ndoosi loolu nag ay exception la waa man du ma amel ay dara yow doo amel ay dara bu ñu ubbee seen youtube nit ñëpp ñu daw ñëw abonné ndoosi il faut ñu liggéey pour nit ñi ñëw abonné si comprendre nga bàyyi lool xel loolu nag bu ñu ko résumé mooy lan bul yàkkamti bul yàkkamti defal affaire bi def bu baax def bu am solo ba pare xam stratégie stratégie yëpp day ñëw dañ la ko li si xam day ñëw wax la ko incha allah rabbi mais bul yàkkamti bul defee ne daal affaire bi daawara dox léegi léegi li ma naan tooba saxal mbaa mu sulli maay baykat bi nga xam ne dafay jël gerte ji ko bëgg mu sax léegi nekk gerte léegi wala mu dindi ko xam nga loolu baaxul te sénégalais yu bëri noonu la ñuy fonctionné bu ñuy def dara li tax duñ ci yàgg mooy dañuy yàkkamti métier sax da ngay léegi bu ko jeunes yu bëri di jàng duñ fa toog jàng ko ba mokk koy jàng tuuti rek bu wecca dugg rek dañuy découragé bàyyi te du jàngal boo amee xam-xam xaalis dalay yomb boo amee loo am xam-xamam xaalis dalay yomb voilà man fu mu nekk nii pour ma gañe xaalis si YouTube bi lu ma yomb la parce que loolu xam naa lan lañ koy defee yow tam boo xamee lañ koy defee rek dalay yomb nga bàyyi loolu xel euh, léegi nag loolu mooy pour nga bañ a yàkkamti bi beneen point bi mooy pour nga euh, tamit euh, xam ni maanaam lu existe lu réel la sénégalais yu bëri ñoo ngi am ay salaire ci YouTube yoo xam ni ci lañ yor seen ay kër ñenn ñi dañuy am youtube boole ko yeneen liggéey ñenn ñi youtube kese lañ du ma benn tur nag parce que fii mbirum xaalis boo ci wax nit ñi duñ bëgg nga tudd leen dañuy am xaalis comprendre voilà mais sama bopp laay mën a wax voilà samay soxla fu mu nekk nii ci lu may gagné ci youtube laa koy fajee te nag xam naa ci ñu bare baree bari xëy na dina ci am ñoo xam ni pour gën a motiver débutants yi peut-être dinañ ñëw ci commentaire ñoom commenté wane ni ñoom seen youtube ci la ñuy faj seen soxla bu ko defee loolu lu réel la waaw te maa ngi demandé ñi yëpp te nga am seen YouTube ñu ngi ciy fayeeku loo xamante ne mën nañu ci faj seen soxla ñu ñëw commenté ci ci ci ci vidéo bi pour gën a gën a dëggal loolu ñu wax ba pare gën a motiver débutants yi nga xam bëgg dañ dugg si que YouTube bi xatul maanaam pour ñëpp la soxlawul ñu si buuxante soxlawul tam ñu ciy soxorante maanaam man sama objectif bi may créer chaîne bi pour jàngale euh, YouTube bi def sama kéemtalaay kattan di sonn pour jàngale ko lenn xam naa ni man nekk naa si YouTube maa ngi monétiser maa ngi ciy gagné xaalis loolu ba ma koy def boobu maa ngi Espagne nekkuma Sénégal léegi nag bi ma ñëwee fi ma nekk ci yeneen activité bàyyi woon yooyu ma dem ba yàgg nag léegi ma dellusiwaat ci YouTube bi ma na nag léegi non seulement damay cons damay nekk samay chaîne YouTube pour monétiser waaye nag dinaa fexe ñu bari tam di monétiser parce que gis naa ay chaîne yu mag yoo xam ñi ngi monétiser boobu ba mais dañ ne Thiel la ay 2STV ñi ngi monétiser ne Thiel la ay TFM et cetera ay am na beneen chaîne bu fi nekkoon te benn artiste moomoon ko chaîne ci chaîne fi njëkk naan monétisation la bokk dama fàtte tur bi mais benn artiste tam dafa génn àdduna quoi yal na ko yàlla yërëm da def ay théâtre France la daan dem ak euh, Sénégal chaîne bi jàppatuma ko daal ay euh, chaîne yu mel ni par exemple ay Prince Art et cetera chaîne yooyu yëpp ñu ngi doon gañ xaalis mais dañoo noppi rek jàpp seen jàmbur jàngale wuñ li nga xamante moom mooy affaire bi parce que dañuy defe ne effet télécentre lay def effet télécentre mooy lan mooy télécentre bañ fi ubbee maanaam bëri dafa jékki-jékki rek xam nga mu ne mu nekk phénomène maanaam ay benn benn la woon ci ay koñe mu jékki-jékki kenn ku ne di ubbi maanaam ku amul liggéey rek daal di dem créer sa télécentre ubbi léegi nag euh, télécentre jékki-jékki doxatuñu après ñoom ñëpp fermé ñu si bëri nag boo waxee léeg-léeg am na sama dégg bu wëndoo di ko wax si benn émission jàkkaarloo ne waa Sénégal moom boo defee benn affaire rek ñëpp di ko defandoo télécentre yi ba ñu ko bee noonu la def révolution technologique moo ko tëj loolu la maanaam télécentre bi amee nit ñi ay fixe lañ doon am seen kër yi ñi amul fixe bëri télécentre yi ubbi pour di faciliter ñoo ñuy mën a ñëw di fay di def ay appel mu dem ba yàgg nag léegi mbir yi bi mu commencé changé mooy bi téléphone portable yi cellulaire yi commencé am kenn ko ne di mën a am sa sa cellulaire soxlatoo dem télécentre mu dem a dem ba phénomène bi di di di développé ñëpp amay cellulaire presque télécentre yi kan moo fay demati di woote kenn seen raison d'être amatul lu ñuy def dañuy tëj nekkul bëri jëleen tëj waane maanaam révolution technologie moo leen tëj moo ngi mel ni rek nga ne nga ne nga ne seet nga ne kaset kaset yi nga xam danga daan jël big yi di ko bobi nekk yooyu mi mel nga jékki-jékki nga ne kaset ñu bëri defandoo kaset kaset kaset amatul déedéet kaset lan moo ko fi jëlee révolution muy lan muy CD CD lan moo ko fi jëlee révolution technologie muy lan muy USB waaw USB fu mu nekk nii lan moo ko fi jëlee révolution technologie muy maanaam smartphone léegi nit ñi smartphone yi la ñuy defar soxla du clé USB smartphone dara mën na dem lu bees loo xam ne moo gën a pratique téléphone yi ñuy nii téléphone commencé xëy waaw dafa am yoo xam ne révolution technologie moo leen fi jëlee mais du bëri gi ñu bëri léegi nag YouTube effet télécentre boobu ñuy wax du ci am li tax mooy plus ñuy dem nit ñi dañuy gën a bëri maanaam dañuy gën a bëri ci YouTube bien sûr te defee dañuy gën a bëri nga naa kon monétisation bu gën a bëri est-ce que non nit ñi dañuy gën a bëri mais entreprise yi publicité dañuy gën a bëri lañ ñu doon wax rek benn euh, formateur bu ko doon wax benn chef marketing en euh, États-Unis mu ne maanaam euh, boo dul def publicité maanaam bu yàggee ñu defal la publicité gratuitement gars yi ko loolu mooy lan mu ne képp comme da nga nayee def publicité bu yàggee ñu defal publicité gratuitement mooy dinañ la bind ci journal bi nga xamante ni entreprise yi tëj yi lañ fee bind te loolu publicité gratuitement la te kenn bëgg ko <laughs> voilà entreprise nag ñoom ñëpp xam nañ loolu moo tax dañuy def marketing entreprise yëpp dañuy am budget marketing di def publicité loolu nag day tax toujours day kanam lay que boo deful publicité ñeneen ñi def yow dañ leen xam duñ la xam léegi ñëppay def publicité même sa léegi soxlu entreprise man mii rek damay am sama vidéo YouTube ma bëgg ko booster damay fay YouTube pour mu booster ko YouTube bu koy booster ñaan la koy def da koy wane ci yeneen vidéo YouTube ñooñu dañ ciy gañ xaalis bi ma fay YouTube da koy séddoo ñeneen youtubeur yi kon effet télécentre waaw du ci am léeg-léeg nag nit ñi yu mel noonu des fois dañ ciy ragal ba tax duñu bëgg mu mu wasaaroo te lu baax danga nga koy wasaare ñëpp jot si voilà loolu la moo gën a waral ñu jël dési ñoo jël décision voilà di jàngale li nga xam mooy monétisation YouTube beneen affaire bi tam ma gis ni tamit maanaam euh, euh, youtube yi nekk si dëkk tubaab yi xaalis bu bari bari bëri la ñuy encaissé xaalis boobu youtube bu encaissé li ñu ko fay ci publicité ba pare mu dugg si banque banque compte banque États-Unis ñoom dañuy obligé après fayaat ñeneen ñi mu tas yeneen compte banque yi nekk ci àdduna bi ci dëkk yi léegi nag Sénégal ay jamono li ma leer mooy xaalis biy jógee États-Unis du fi dugg si li ñuy fay youtube yi bëriwul mais fi mu nii commencé di bëri te ñun suñu objectif loolu maanaam xaalis bi nga min ci YouTube ay milliards de milliards la du ma ne ay millions de milliards ay centaines de milliards ay milliards de milliards la YouTube ak Google li ñu gagné xaalis maanaam par anne ay milliards de milliards la loolu yàlla kese moo xam nu mu toll comprendre nga voilà xaalis boobu nag dañoo war a fexe le maximum di ci dugg Sénégal loolu gouvernement bi ci wàllum réseaux sociaux ñuy ñuy wax dama yaakaar sax li ñu gën a war a mën a def ñoom wala mais loolu sax dinaa ci ñëw benn vidéo boppam boo xam dinaa demander après ñëpp partager ko a xeex réseaux sociaux ñu jàppale nit ñi xam leen ne réseaux sociaux mën nañ ko utiliser bu nekk liggéey ñu fexe jeunes yi di ci liggéey au lieu ñu ciy def lu jaar loolu moo ëpp njëriñ voilà ndox su fekkee da nga bañ mu jaar fii parce que bu fa jaar day yàq ay kër dangay gas canalisation pour wutal ko fu mu jaar parce ndox mi il faut dina am fu mu jaar jeunes yi il faut ñu am lu ñu def mënuñu toog jeune mënul toog il faut mu am lu mu def il faut mu mu dina am daal lu mu def parce que jeune dafa am énergie bu nekk ci moom boo xam ne il faut mu génnee ko léegi nag boo ko canaliser wul ci fu normal nga bàyyi ko ak liberté am li mu bëgg a def lay def su ko def nga nekk fii comme man dafa koy kar sax dañu nekk fi di saaga dañu nekk def affaire effectivement du lu baax te dañ koy def waaye dañ leen a canaliser wul gouvernement bi nag bu ñu fexewoon jeunes yi ñoom baleen ñi am ordinateur di ay connexion internet maanaam peut-être leen canaliser ci ñuy business ci internet loolu dinañ benn vidéo fii boo xamante ni après dinañ demande ñëpp partager ko pour nguur gi au moins ñu mën ci jot mën a jënd ay ordinateur distribué ko jeunes yi waa Sonatel mën a may nit ñi ay jeunes yu bari ñu jël leen bu ñu jëloon par exemple junniy jeunes wala dix mille jeunes jeune bu si nekk ñu may la connexion gratuite pendant un an un an yi gouvernement bu la joxee benn ordinateur waa Orange jox la connexion un an gratuitement doo fay 24 heures sur 24 balaa muy def un an di nga créer business xam ni année ba sa connexion te yaa ngi sa ordinateur nga créer sa propre business ci internet waaw loolu yomb la te loolu bu ko gouvernement defee ñu ñu jël engagement jàngal jeunes yooyu yëpp nu ñu gagné xaalis ci internet jël concentré wu ci 100 pour cent ci formation spécialisée incha allahu rabbi voilà mais loolu <laughs> dinañ ko lancer la vidéo boppam incha allahu rabbi bu ko defee yéen ñëpp ngeen jàpp ci partager ko pour loolu mën a nekk léegi vidéo bi xam naa dugg du dañ koy yemale fii introduction la woon ci formation bees bi muy YouTube de zéro a monétisation léegi suivre leen ko vidéo bii di ñëw nga suivre ko liñ ci wane vidéo bu ñu dugal seetaan ko ba mu jeex soo ko seetaanee ba mu jeex après nga reprendre ko nag lu ñu def nga def lu ñu def nga def soo ci amee loolu la jaaxal après nga bind ci commentaire bu ñu amee temps dinañ ñëw euh, ñu répondre ci incha allah rabbi kon ñu leen di jox rendez-vous ba vidéo bi di ñëw incha allah jërë ngeen jëf